nan ma jàllampi waaw jërëjëf kii keroog bi ñëwee ñu ni moom kilifa la Cheikh Atman kenn du ko def loolu dañ koy mm-hmm. daggal kees daggal ko kees gi dagg bant yi xunóot. Baye Omar ah, nee na woon bu leen ko xunóotali bant de. waaw <laughs> nee na woon jëlampi leen ko. Mm-hmm. ñu ne ah Cheikh Atman kilifa gu toll ne moom kenn du ko dog bi ne jéeyi néew benn bisimilah. Mm-hmm. bi. wa ansir ala asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi ñu topp fii ci seen télévision Lamp Fall ci seen jotaay bii di Jazboul Mouride ñu ci waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall noo ngi leen nuyu baax te di leen ziar di jiital ci nuyoo yëpp ak ziar yëpp sunu yaakaar Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di sàkku ci murid yëpp ñu ñaanal ko ba naal yim naal ngir lëggeel ko Serigne Touba lépp yàlla na ko yeggale lépp ci sagoom ba sumb yeneen te ñu ko ak moom di ko ñaanal baax Serigne Cheikh Jëmm Fall mi yàlla dogal tey mu toog ci bopp njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall li ñaan suñu borom dool ko fa yàggal baax te wéral ko ba naal naal lépp ngir liggéeyal ko maam Cheikh Ibrahima waaye liggéeyal ko Serigne Modou Moustapha Fall yàlla na ko fi yàlla yàggal ba mu liggéey ko di ziar bu baax mbooleem sëti Serigne Touba yëpp mbooleem seexi Serigne Touba yëpp mbooleem taalibe yëpp di ñaan jotaay bi liñ ciy topp yàlla na ci daje ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall euh, Babi Mouridina di santaa sunu borom baax a baax nag euh, di ndokkeel mbooleem jullit ñëpp nag ci at mi nga xam ne ci la ñuy tabbi ñu atum mille euh, mille quatre cent quarante euh, te at moo xamante ni bii ñoo ngi ñaan yàlla rek ñu dugg ci ak euh, bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te at mi jàll lépp lu ñu ci def ci ay rëcc rëcc sans borom jéggal nu ko waaye at mi ñuy tàbbi itam lépp ñu ci jaamu yàlla suñu borom fulal nu ko di ziar mboolem mbokk yi nga xam ne dañuy topp ci biir réew mi ci bitim réew ci seen jotaay bi muy talaata talaata ñëpp miin ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina ndax Cheikh Ibrahima moo séddoo woon talaata te yu bëri ci ay ngëneel yoo xam ni maam Cheikh Ibrahima Fall wax na ko ci loo xam mag ñi nettali nañ ko du ñàkk ci kanam incha allah danañ ci dikk tey nag ñu fas yéene waxtaane kenn ci mag ñi nga xam ne dañoo àndoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall yàgg ak Cheikh Ibrahima Fall ñoo bokk lépp am na ci loolu de su ko neexee wax ci jotaay waaye mën naa ne daanaka buñ ko sañoon wax dañ naan ci ak ndaw ba ci màgg ndax ñoo bokk lépp di ay bokk yoo xam ni bu sëñ Papa Guèye ñëwee ak sëñ Moussa Ndiaye Ndiare dinañ ci gën a yaatal bu baax muy Cheikh Atoumane Diop cheikh atuman bokk ci mag ñi nga xamne cheikh rofal da na wax na moy seen kilifa ca yalla lolu bay bay bay moussa bay moussa ñang kol moo ko wax te bay taala ñang moko wax ci ñew sama bay neena ma damay bëss cheikh rofal fall bëss ci njaarim bam mu muna ma moussa muna ko fall muna ma seen kilifa ca yalla na fi ne muna ko la cheikh rofal na mak bamba soron nu yeen lol dom atuman jub ca cogo moy seen kilifa ca yalla kooku lañ fassiyene waxtane tay tey aline badara alaykum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 ñu ngi leen di euh, nuyu te di leen ziar. Mm-hmm. nuyoo beeg ziar bi tàmbalee ko si Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntakal Bachir Mbacké. Mm-hmm. xalif général de Mourides di ko ñaan mu yàgg fi loolu temps rek wér. Mm-hmm. di euh, ziar bu baax Serigne Cheikh Jëmb Fall mu fi maam Cheikh Ibrahima Fall ñaanal ko mu yàgg fi loolu temps rek wér. waaye di beral nuyoo ak ziar Serigne Cheikh Ngunda Fall mi suñu yaakaar tey ak ëllëg. di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te man dëkk wér mhm. di ñaan suñu borom lu mu naal ngir euh, ah, liggéeyal ko maamam maam Cheikh Ibrahima Fall mu defee ko nu kawe njortam te ànd ak mbokki taalibe yi sëñ Mamour di la ziyaaraat bu baax a baax mhm. jotaay bi nam namoon ko lool nga xam nga ni jamono ji yëpp ndeysaan si ay génn lañ nekkoon si ay reportage yu am solo mhm. dem di ko indi di ko xamal mbokki taalibe yi moo taxoon kon jotaayu plateau bi xawoon a gëj ak yeneen xew-xew doon tombeel waaye nag dellu si waat incha allah si jàmm. Mhm. Euh, euh, kon euh, fas yéene ko seq kilifa yu baax yii ni nga ko waxee. Mhm. sunu bàyyi Serigne Papa Gueye. bu mhm. baax mii. nga xamante ni waxtaanam ko la xam-xamam si maam Cheikh Ibrahima Fall ak si yoon wi. kenn dootu ko nattable. waye Serigne mustapha ndjay ndjaré mhm. mi nga xamanteni ñepp xam nañ ko si euh, mhm. ëttu dawaamu shukri mhm. waye fudul dul gogu di ëtt Serigne Touba khadim Rasul nga xamanteni ñom ñoom euh, daanaka si Serigne bi lañuy xey ci Serigne bi lañuy gont kon ñu ngi leen di santat bu baax baax waxtaan ni ko ko euh kilifa gu tedd bo xamanteni lepp imam Cheikh ibrahim fallo won Serigne Cheikh Atoumane Diop waaw mom mom inshallah mbokk yi buñu deglo rek inshallah dinañ deglo kon ñu dalal suñu mbokk yi bu baax tubaarkàlla eh, sëñ Aline Badara jërëjëf ci nuyoo bu am solo boobu rek di fàttali ne rek tey ñi nga xam ne ñoom lañ dalal ci jotaay bi ñu fas yéene waxtaane Cheikh Atoumane Diop bokk ci mag ñi njëkk ànd ak maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina mooy sunu baay Serigne Papa Guèye eh, bàyyi ko ba Louga moom di borom xam-xam xam ne moom jotaay bi namoon na ko namm na ko ndax yàgg nañ koo waajal waaye xam naa fii la ko maam Cheikh di tuddee muy war a waxtaane tey première jotaayam ci Jazboul Mouride waxtaane Cheikh Atoumane Diop bokk ci mag ñi ak maam Cheikh Ibrahima Fall waaye Serigne Moustapha Ndiaye moom itam moom Serigne Cheikh Ndiaye Abdou Rassakh moom Serigne Darou Assane Ndiaye moom ñii xam nga ne moom itam njare la bokk tey kër maamam la ñëw mm-hmm. ndax jotaay jotaay maam Cheikh Rahane Fall mm-hmm. te xam nga sëñ Daaru Assane Ndiaye Cheikh bokk njare xam nga maam Assou Diop may caatu maam Seynabou Ndiaye nga xam ne maam Issa Alima Diop a ko jur sëñ Daaru Assane Ndiaye lañ ko joxoon defe naa sëñ Ousmane Ndiaye sëñ Mut Ndiaye Assou sëñ Ibra Assou Ndiaye bu sa Ndiaye waaw moom mel na ne kon ci ci ci ci ci ci ci yëf la tubaarkal la kon ñu fas yéene dalal nag ngir ñu waxtaanee jàmbaar ji di maam Cheikh Ibrahima Fall ak euh, Cheikh Atoumane Diop xam naa dañ jox sunu bàyyi suñ papa gi mu nuyoo ak mbokk yi jàkkaarloo noonu. awuzu billahi min may li xayri rida mhm. wa min suddoodi sunna aw si quraan i lana huna bada waj al kalaami wa mursida fikrati nawil wa qalbi arsida mhm. بسم الله الرحمن الرحيم وإلى باب المريدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسرية من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه وخديمي خديمي المريد الاكبر مام شيخ ابراهيم فال باب المريدين ومسلم بإحسان الى يوم الدين والى باب المريدين وخائدهم شيخ ابراهيم فال مخجل مخجل سوي لك اسفل الفال يا بويت لولا اساد نارنا لخالو اكلنا مديدا السلام عليكم بك جليدي بك طالبي نيغي لين دي نوي دي لين leen ziar nuyu bi nag comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi ciy jiital suñu mën taxaw ibnu cheikh mamadou bachir yàlla ba naal yim naal ci liggéeyal sëriñ bi yàlla defal ko ci lu kawe njortam di ci tëgg sëriñ Cheikh Jëmba Fall mi nga xamante ni nii mm. moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Atoumane ki ko fi nekkal Baye Assane mm. ñu ngi koy siyaar bu baax ak mm. mbooleem njabootu nag congo gépp mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar mm-hmm. itam bu baax sama mm-hmm. xalifa Baye Cheikh ci kër Cheikh Mourou bu muy sama mag ñu bokk ndey ak mboolem njabootu Cheikh Mourou ba <coughs> ndeysaan jërëjëf ñu ngi leen di baax <laughs> jërëjëf ndeysaan jërëjëf sëñ papa gi ci nuyoo bu mattale boobu سي موسى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وسلم عبدا على الذي به لنا هدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على كتاب المستبي مع جميع النهم بكي نبك سنت سنبرم سبحانه وتعالى جدك سنغم بتدبل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ñaan yàlla sunu sëriñ sunu yaakaar Cheikh Mouhamadou Mountakha yàgg fi lool te wér noonu lañ ko ñaanalee sëriñ Cheikh Fall jëmb moom maam Cheikh Rane Fall Baawul Mouridina mu yàgg fi lool te wér waaye noonu lañ ko ñaanalee sunu buntu ci kër sëriñ Touba sëriñ Ahmadou Moukhtar moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Karim mm. mu ñaan mu yàgg fi lool te sunu buntu ci kër sëriñ Daaru Hasan sëriñ Cheikh Ndiaye Abdou Razak ñu ngi koy ñaan itam moom itam mu yàgg fi lool te wér mm. ak sëriñ Abdou Khadre Ndiaye moom xalifa sëriñ Daaru Hasan Ndiaye di bëgg lool nag lool lool ci barab bi jotaay bii mhm. ngir ñett ba ñeent mhm. euh, fekk gi ñu fekk mbokki taalibe yi bekk yéen lool ndax mhm. liggéey bi ngeen di liggéeyal Sëñ Tuubaa àdduna gis na ko kuy liggéeyal Sëñ Tuubaa te gëm ko xam ne Cheikh Ibra Fall bëgg yàlla xam na ko du jaaxaat alhamdulilah di bëgg bu baax suñu yu baax dara ñu ngi lay siyaar leen nuyu bu baax di bëgg na itam ñaareelu bëkk bi mooy teewandoo gi ma teewandoo sama sama sama kilifa sama xarit mhm. fekk naa ko ba Louga mhm. def naa fa moom ñaari fan muy sëñ Papa Gueye mi mhm. tabarkalla di sëtu seex Mbarou Ba di ko bëgg maamam Cheikh Rangé Fall Babou Mouridine te kii noonu noonu a waxtaane nag tey jii muy Cheikh Atoumane xam nga ne mook Cheikh mook sëñ Mbarou Ba ñoo bokk lépp ñu bokk seen lépp ñu siyaaree Sëñ Asan ñu siyaaree Baye Saliou di siyaaree itam njabootu Cheikh Atoumane gépp góor a jigéen Baye Serigne Diop ci géejawaay incha allah rabbi bu ñu duggee ci jotaay bi dana ñu xam ne Cheikh Rangé am na morom xanaa rek li may anticiper mooy. laaj bi may laaj nga dugg àggale àggale sa <laughs> naay laaj ne euh, Jibril alayhi salaatu wa salaam ku ko jàngal alxuraan. Seydina Jibril euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko jàngal alxuraan. Seydina Jibril moo ko jàngal alxuraan. Hmm. Cheikh Rahane Fall dafa wax ne man itam ki ma jàngal ak taalib bi. Hmm. mooy Seydina Jibril alayhi salaam. kon nga xam ne. Hmm. ak murit daa dikk ak taalib bi ñëw. Baay Fall doo topp ci gannaaw. kon ak Baye Fall la kenn xamul lu mu doon. Hmm. xam nga euh, sëñ Mamoun. Hmm. alxuraan baax na lool. Hmm. du maram yi dara. yàlla dafay yebar ñeneen ñu jiitu woon. Zabur dafa ñëw. Injil ñëw. Tawret ñëw ba alxuraan ñëwee da leen dëpp ñun ñëpp. yàlla ñor gi ko alxuraan ñor. moo tax mu jokk Jibril alayhi salaatu ko dil jukki saa bu la soobee di yóbbu ci yéen tamit sallallahu alayhi wasallam. waaye kon nga xam ne la la ñor yàlla ba mu yebal Jibril alayhi salaatu wasalaam ci yitte ja. diir bu ne muy ñëw hmm. ci ka nga xamante moo ko wax na ko waxal na yaa maxsaral jin wal insi inni rasulullah ilaykum hmm. ba ku mel noonu dëgg malee jëm ca moom hmm. muy Cheikh Rangé Fall suñ eh, borom moo ko ne demal jiiku bu àggee defal nee muy def na na muy def Cheikh Rangé Fall ko wax moo jiitu na ko Fall lu xew mu ne daa jiitu sol dalli bët tekki ak métalam ma top ci gannaawam. Mhm. sol dal wagganti mhm. tek sama kala mhm. ci mbake Kajoor kon li ñor yalla bam mu yebal ba mu ba yebal Jibril ci alquran ya yebal ya ci yeen jibril alayhi salaam mi alquran karim. nonu la ak taalibe ñoree euh, suñu borom. ci Sëñ touba moo tax ba mu yegsee dafa wax ne. sans borom mi ma moom mm-hmm. moo ma ne loolu responsabilité la mm-hmm. ñu ne ko ku la moom mu ne ahmadu mi moo moom mu ne ko lu fa xew mu ne ko raasi ko jox ko say pexe mm-hmm. waaye nag yemu ànd ak ay jàmbaar kii ñu bëgg waxtaane ci la bokk ci la bokk yaa ko wax léegi da koo yàgg topp ndar koo fay tudd ca mag ña la bokk te fekk na lépp danañ ci dikk ma ñëw wala ma dem danañ ñëw <laughs> ñu ngi ñëwaat léegi incha allah sëñ Moussa donc dañ laa bëgg ubbil ba yaatu rek ñu bàyyi loo xam ne waajal na ko ci mm-hmm. jàmbaar jooju di Cheikh Atoumane mm-hmm. dafa yàgg ak maam Cheikh Ibrahima Fall jaar bu baax nag ci jotaay bi sunu baay baay Assane Diop mm-hmm. mi nga xam ne tey moo wuutu Cheikh Atoumane Diop di doon baay Cheikh Diop baay Cheikh Diop doon taaw Cheikh Atoumane Diop ñu dippe ko maam Cheikh Ibrahima Fall Baay Mouridina ca mag ñi la bokk ci mook baay Cheikh Ndaw ñoom ñaar la Cheikh Fall njëkkam ci turandoo mooy baay Cheikh Diop ak baay Cheikh Ndaw baay Cheikh Diop taaw Cheikh Atoumane Diop mi jur Baye Assane mi ni xalifa bi tey ak Baye Cheikh ñoom ñaar la Cheikh ba njëkk am ci turandoo kon nag kooku di Baye Assane joxe ndigal li tey ñu fas yéene waxtaane ci maamam ju tedd jooju mm-hmm. ñoo ngi ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér waaye di ziar Baye Serigne nekk fii ci parcelle mm-hmm. di bu baax a baax itam euh, mboolem njaboot yëpp itam Baye Saliou jóob di ko ziar bu baax a baax Baye Saliou moom barki démb rek lu mm-hmm. eh, bi la sax mm-hmm. dama jàpp ne dañuy bàyyi Baye Assane mu ubbil ñu mm-hmm. bi kan mooy Saxaatu man Diop su fekkee ne sëñ Lamine ñu ngi ñuy dégg kan mooy Saxaatu man Diop ñu door a nag si ci waxtaan wi ànd kook sunu gan yu tedd yi nga xam ne teew nañ si moom xam naa njaxas bi da ko fiy bàyyi bu noppee waa fii <laughs> bisimilah sëñ Lamine ñu dem waa lu am solo ndaxte waxtaanu Cheikh Ibra moom daal daanaka muy waxtaanu Cheikh Ibra ñu bokk bari na ñoo maase itam te du sàkko baan wax na ne ah ak Cheikh bokk bari na de ñoo bokk benn kër parental itam suñ dara wàq Cheikh Atumaan nag comme noonu ma la ko waxee ñu bokk dab bi ñu gën a waaye moom dafa xaw a gàtt fan ndaxte 1922 la génn àdduna ba mu génnee àdduna itam sama bàyyi la sama yabal ca Cheikh Ibrahima ca Njaareem mu fekk ko cëpp Makka loolu mu toog mu toog mu ne ko sama sama sama bàyyi la dama yónni woon àdduna mu ko naa dee jox ko ko mu mu gisee loo xamante ne da caa def bu waaye dégg naa moom sax ndek mu soo garab bi daal taxaw daane weexee ak naan da day tàggoo nag ba nga ko déglu ko waaye léegi nag léegi na léegi naa yebal léegi ci Seexul Xadim ci ñu yaakaar ñun ñëpp ci Seex Adnaan ba mu fa yeblee dégg naa ko tedd di yóbbu fenn mën na boppam nañ ko bàyyi foofa mu ne foofa nga ko dexee noonu ñu cëru jóob nañ ko fa def fu nga fa fekk mu xett moo tax euh, bi nga xamee ne dem nañ ba sëriñ di ko defaraat sëriñ bi sàkko joxe ci ndigal lu rëy rëy bindam leetal daal na bokk taalibe yëpp maa ngi leen di digal dara bu seexaat maan boobee lu ci waay mën na ko ci def ñu defal ko ba mu yelloo boromam lu ci waay joxe nag na ko teg ci loxol asal jóob moom nga xam ne moo di sëtam te ne leetal boobee bëggoon naa ko sax génne ñu won ko waa làmp waaye yàlla dogal na xamu fu ñu ko def ndax dafa ni sa tey bi xam naa te man wax dëgg yàlla xamu fu mu ko teg ndax yàgg na 1982 la woon defe naa 1982 la sëñ Abdou Sakho bindee lettre boobu te boobu moo nekkoon xalifa Cheikh Ibrahima léegi léegi nag waxtaan yi waxtaan ma moom ànd naa ci lool defe naa ci liggéey itam waaw yal na leen defal tawfeex ak tey si te itam li li leen ci yaakaar ci liggéey sëñ bi sëñ bi nangu liggéey boobu lépp yàlla ñu ko yàlla defal ci barke Sëñ Ibrahima Fall barke Sëñ Asmane Diop bu bu bu ñu jógee ndax ay ay daara di ko doon ay liggéey ñëpp di ko jot dëkk yooyu jot jàngul waaye barkalla Euh, jërëjëf euh, Baye Assane Diop di ko ñaanal baax suñu borom dolli ko fa yàggal te may ko ak wér euh, dégg ngeen li nga xam ne leeral nañ ñu ko ci Cheikh Atoumane nga xam ne cosaanam wax na ne tamit ko fi teel a jóge la ndax 1922 yàgg na moom la ñuy wax saa su ne waaye ku maam Cheikh Ibrahima Fall taxoo woon la ndax firnde li rek mën nañoo wax ne bi nga xam ni Cheikh Ibrahima dem na Ndar ka nga xam ne yàlla dogal na fekkoon na ci jamono booba mu génn àddina te wax ne Cheikh Ibrahima ku dellu siwaat àddina kooku boo ko maam Cheikh delloo si waatee Cheikh Atoumane Diop la ko jox. soxna Fadde ci ma ngoog. kookee nag doom jala jox si ama a ma ngoog ma ngoog kookee la yàlla dogal maam Cheikh Diop Atoumane la ñu mi nga xam ne moom yàgg na fi sax bi fi bàyyi ko yàggul loolu lépp day wane ne kon euh, ku taxawoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall Baab Mourideen sëñ Aline Badara su ko defee nga dalal euh, sëñ Papa Guèye mel am na lu mu waajal nag ndax ndax gis naa tiim waaw tey moom ku am gën tëraani waaw ku am gën tëraani waaw jërëjëf Maam ni nga ko waxee sëñ Papa Guèye xam ngeen ni euh, ni nga ko waxee doon lépp si euh, kër Serigne Atoumane Diop. Mhm. waaye doon lépp kër maam Cheikh Ibrahima Fall si mhm. xam-xam bu rafet bi. Mhm. maanaam ngir ñii seetaan. kan mooy Cheikh Atoumane Diop. waaw moom li Baye Assane wax léegi rek. xam nga Cheikh Atoumane ak Cheikh Ibrahima danoo bokk bokku démb. bokku démb lan bokkoon. Euh, ba bi Cheikh Modou Lamine feeñe moom Sëñ te keroog maam Cheikh korose ñaari loxo mi daal ne ah bisimilah jàmm gan gi ñëw tey daa jël tànk bi teg ci jant bi naaj bi am tey. Mhm. Hmm? loolu bi ñëwee sëñ Daam Abdourahmane Cheikh Ibra Sarr Cheikh Samba Diop sëñ Cheikh Ibra sëñ dañ leen gan gi ñëw biig ngërëmal yàlla li ngeen doon sàkku si. Mhm. indaaleel na leen ko. waaye dañuy Cheikh Ibra rek yow na nga dem Ndar loolu mooy sa digal. Hmm. digal naa la na ngay dox guddi. di noppalu bëccëg. dox guddi di noppalu bëccëg. bi mu ñëwee waadaan. Mm-hmm. kër sëñ jéeri. fala fala dal fala fala dallu ba mu fa dalloo. Mm-hmm. ba fajar si nit mu si mu mu sikkar fa sikkar sikkar su su doy waar. Mm-hmm. ba ba ba waa di riir mun nag dëkk bi am naa fi soxna Fatou Diop seer lay tudd danaa am moom ñaari doom yu àtte jamono. booba bu mu ñëwee moom ab dof ko jàppoon ñun dof bi France ci dëkk bi ci waxin ni ngeen ma jéggal ci waxin bi waaw waaw waaw mhm. waaye bii Cheikh bii sëñ jéeri ànd ak sëñ seer ñu dem angan ñetti kilomètre ak waa daan dañoo julli tàkkusaan ma noppi rek mhm. sëñ jéeri daan ni ko seer mu ni ko sugu mu ni ko kan bàyyi ca dëkk ba doomu dof ñaari doom yi mu am na ko Faat Diop sa dooma leen di jur jox nañ ma loxo fii muy sëñ Mortala ak sëñ Aliou Fall Mbaor Hmm. waaye ba mu fa jógee nag boobu fekk na sëñ Modou Roqee Fall waajuru Cheikh Ibra wàcc liggéey ba jël maam Seynabou Ndiaye jox ko sëñ Belel Diop waaw mooy li sëñ bi doon wax maam Issa Aliou waaye ba muy dem nag hmm. la ànd ak Cheikh Atman Cheikh ak maam ma Ndiaye wàqi la àndal hmm. waaye bu ñëwee fekk kër sëñ Belel gi ràpp te a ngi ci biir kër gi ak njàmbaar gi fa Cheikh Ibra indaale mu yeesal kër gi nag bi mu yeesalee kër gi xam nga soxna yi am ko wax ni xool leen dofub Seynabou Ndiaye bi kër bàyyi jaabur mu dégg ko nii leen dàkku naa leen ñeent fukki at jigéen dootu fi jur wàll yi bis boobu la fa jógee nag ànd ak Mama Samba Ndiaye ak Cheikh Atma ñëw ndar ba ñëwee ndar tasineer la dem ci gànjool ñu jox ko fa tool yi dër muy bay tool yi dër yi booba commandant carte moo nekk ndar waaye dafa am tawat tawat ci biir tawat ji nag yóbbu na ko fu ne munta wér waaye li Cheikh rek di bay ci toolam yi bu duggee ci kol bi dootu yëg métit <laughs> muy topp loolu di topp loolu di topp xam ni lii wéral ci kollam bi hmm. ci tooli Cheikh Rafal yi lay joggé hmm. té kan ñoño génné won sëriñ bi té ñoño génné won sëriñ wayé hmm. waaye eh. xool mu ku ba na carte benn doom bu góor la am Cheikh Rafal la tuddu Cheikh Rafal carte la tuddu nan Cheikh la ko tuddé ab tubaab waaye nag bis jot ñuy waji julli timis Cheikh ibrahim ànd ak Mama Samba Ndiaye ak Cheikh Atoumane booba sëriñ bi demagul ci géej gi ñëw ba ci tefesu géej gi bu jël tankam ni tégg ci kaw ndox bi ñom ñaar ñi gis am Cheikh di dox ci ndox bi melni kuy dox ci tali ba guddigi xaj maama Samba Ndiaye daal ni ko ah Atoumane su ma xamoon dañuy ànd moom ba fii muy xaru kon du ñëw mhm. ñu fanaan ci tefes gi ba fajar mhm. gannaxi fajar yi moo ëmb Cheikh Ibra akuk leer ba daaneel ko ci seen tànk mu ne ana ma Samba Ndiaye mu ne faal mu ne ana Atoumane daa ah, doom xanaa jommi ngeen ku dul sëñ tuwaay doom la daan wax Cheikh Ibra ñëpp doomam lañ xanaa jommi ngeen mhm. maama Sama Ndiaye waxtu ni ko ah Fall ñu koy jëmmi woon danoo dee mu ni ko ah géej daf maa xamal ne dana ma sa dëkkoo Cheikhul Khadim looloo taxoon nga duggoon ci biir di ko jàngalu taalibe daa ne ah, doom mm. jàngal naa ko ba nangul dama gi waaw mm-hmm. Cheikh Ibrahima xam li xew de mm. bi ci des mooy booba nag am na fàdde ci jaañ moom ngeen wax léegi mm-hmm. booba dafa fekkoon amoon na tawati tawat yoo xam ni mm. as camara wàll yoowu nekkoon dara moo leen góor yàlla rek moo fi ñëw di ñaanal ko mu wér léegi nag maam Cheikh Ibrahima nag bi Cheikh Atman daan màjjal di ñëw ci kër soxna Faat Fall Wade soxna si da ko daan sarax ba benn bis bu ñëw fekk tawat ja daaneel ko bi ko tawat ja daaneel la la wax ni te ngeen maa may ma dem waxi ko sama sëriñ mu ñëw ñaanal ko ñu ne ko kii waxtu rek lay xaar am ñu ni kii li mu wax ay bàyyi leen ko mu dem ñii ni kii waxtu rek lay xaar biñ ko bàyyee mu dem nag waxi ko maam Cheikh bi mu ànd ak moom daataan ñëw fekk na soxna si wàcc ab liggéey ban doggale ko takk tànkee takk loxo yi teg ci wa ci wanag bi mm-hmm. bi Cheikh Atman ànd ak moom ñëw bu ci biir nag ñu ne ko si yow de lu baax nga doon def waaye sa soxna sa far na noppalu ci la ko jukkay mu dikkal nag mu tàng hmm. daal di geesu Cheikh Ibrahima ni ko dama bëgg nga dekkalal ko ci daraje Sëñ Tuubaa mu ne ko kalimatu laa ilaaha illallah hmm. maam Cheikh si Cheikh Atman ni de bi si si saxee ba sax Cheikh Ibrahima di bàgg ci digg kër gi bi mu nee Sëñ Bamba ci kaw soxna si di sa fa te soli ci wan ak wi ñëpp dégg hmm. ci leen jël maam Faat Fall Wade mu nekkoon gërmi Yërim Mbañi Wade jur ko ñu jox ko Cheikh Ibra ndax booba Cheikh Ibra fan fanweeri dammeel ak ñett la doon jokkal Sëñ Tuubaa te mbokk ma ndax Yërim ak Asu Njaay njaree ko meñ ñoo waaw noonu la demee mbokk ma comme xam nga Cheikh Ibra dañ ko war di ci réew mi mhm. parce que mooy mbokkum réew mi léegi nag bi loolu amee mhm. ci leen jël maam Faat Fall Wade jox ko Cheikh Ibra mhm. mu taaloo ci sëñ Fallou Fall sëñ Ablaye Fall Ndar soxna Roqee Fall ñu jël maam fàdde ci benn doom bu jigéen la amoon xandu jëtu ñu ngi ñu jox ko Cheikh Atman mu taaloo ci Cheikh Diop ak ah. waaye nag seenu bokk jiitul loolu njare mm-hmm. la seenu bokk parce que Atman mm-hmm. Atman Touré ga xam ni ma fa la euh, date de naissance Cheikh Birame mm-hmm. borom dëkk moom la Touré Atman moom la tuddee Cheikh Atman dëgg la ñu bokk ñoom ñaar bokk bu yàgg xam nga bàyyi aset wax na ko dañuy këllu parental Ah, nee na sëñ Abdou Sakoro ko wax sëñ Abdou Sakoro ko wax nee na ñoo ko bokk ñoom ñaar kon 1855 ñoom ñaar daanaka lañ lañ lañ feeñ dafa teel dafay teel a jóge nag mhm. waaye ku doy waar la mhm. waaw xool ku toll ne Cheikh Ibra mhm. ni seen jëwriñ Baye Moussa la ko wax seen jëwriñ ci lislaam ruum gi tàggu na ma mu ni ko mbaa bi yow mbaa sëñ mu ni ko maag sëñ Bamba ak yéen sore nanu Atoumane Diop ca conga laa wax te ba ban koy denc nag sëñ Mamoun lu day waar xew na ba hmm. Omar Ndiaye la woo ba mu ñëw dañ leen woon bu ma dag kenn daggale kees waaw bu ma kenn xundóotali bant hmm. bu ngeen may rob na ngeen ma jallampi hmm. waaw loolu la Cheikh Atoumane moo koy si wolof yoo xëy ni sunu classe bi dinañ ko gën xam nga bu ñu dee am na ñoo xam ne bu ñuy gas barab dañuy gas kees gu jëkk gas geneen kees mhm. goo xam ne dañuy dagg ay bant xunóot bant yi bant yooyu nag la ñuy jël rangale ko ci kees ngir yow néew bi suuf si ban bu mhm. buñ ko jëlee jël ay xob baaj seng teg ci kaw doo ko doo ko suul mhm. Asman nag bii loolu amee dañuy def daf ni woon bu leen ma ko def nan ma jallampi waaw jërëjëf kii keroog bi ñëwee ñu ni moom kilifa la Cheikh Atman kenn du ko def loolu dañ koy daggal kees daggal ko kees gi dagg bant yi xunóot Baye Omar Ndiaye nee na ah nee na woon bu leen ko xunóotali bant de waaw <laughs> nee na leen ko mhm. ñu ne ah, kilifa gu toll ne moom ko doog bi ne jéeyi néewi benn armeel bi moo fermé wul boppam maa la wax ngërëm la hmm. waaw waaw ah, kooku du ci kooku du yooyu mhm. moo jël bant yoon daggoon di ko xunóot kum ci dàq ba jot la lu tëgg la bant mhm. il faut nit ñu xam ni nii ngeen di def nak lu doy lu doy war lu am solo parce que mag ñi àndoon ak Cheikh ibrahim da ku ma sa and ak Cheikh Rafal Kadar ga. waaw waaw Cheikh ibrahim gën top Cheikh ibrahim àndul ak àndoon ay choma de. andul ak ay choma ñi andon ak mom ñoñu ay kadar lañu. kadar yoyu andon ak mom nak Cheikh Atman mi da bok ci kadar yoyu waaw. Mm-hmm. Eh? waaw ca def bu njëkk ga la bokk. waaw ca ca ca ca bu njëkk ga la bo xol bo demee ciongo ba gis njabotam gi mm-hmm. ba gis fan ko denc mm-hmm. gis ña nga xamanteni amon amoon na rakk yoo xam ni Babacar Diop la tudd mm-hmm. ñoom ñaar dañu bokk ay bay waaw mooy Cheikh ibrahim la nuru won ba mam Cheikh bu masaan bëgg setu mom lay wolu nga xamni bu jubee Cheikh ibrahim mom day paralyser mom bu ko ji bu jubee mam Cheikh dootu xam fu mu jëm bu bu bu Cheikh ibrahim bu nak da nga ko afal tuub na nuru gi ndand faal googu sanc nan fa ñu sanc ndànd Cheikh Atman ni leen kër gi tey bu fi kenn yendu am ku dem am ku fa am ku fa des xam naa ñàkk naa dégg euh, waxin wa kër gi lakk doomam ju ñuy wax Saliou Diop nekk ci biir biir néegu ñax bi kër gi tàkk néeg bi tàkkaale ñu yuuxu ni Saliou Diop a ngi ci biir sawara wi bi Cheikh Atman ne tël dani tey ma fay sawara wi ba fayaale sawaraw ëllëg man la fem toll baax na waaw da danañ del suwaat koku da xam nga ne bokku ci ñi moom ah, waaye nag kenn du Cheikh Ibrahima Fall waaw suñ Moussa uh-huh. aju ñu dem Cheikh Ibrahima Fall ah. moo xorom jinn cey yalla loy <laughs> am ko suñ duwaa hmm. bay ma sante ko ko waaw cey sëriñ Saliou daan wax ne mm-hmm. lepp mom waaw dégg na ki lamine lamiñ sëriñ Saliou mm-hmm. dama ko siyaare mm-hmm. mu xat lol jambar jooju maneko salamun alayka ya hawsul wara wa ya xutban rabbani lil arif لإصلاح دارنا آتيناك صالح وأنت لمن نرجو ونعمل صالح يا مرحبا ببامبا صالح شيخ الشيوخ بامبا أحمد أنت الكريم ابن الكريم أحمد تقي نقي هو صالح daal ko ne jox naa sama loxo ci barke Cheikh Ibrahima Fall wax na mboolem nañ ibi keroog wax na ci Cheikh Ibrahima loo xamante ne nii keroog jotaay boobu dañoo dagg siyaar bi ñu waxtaan ci Cheikh Ibrahima Fall ñu jotali moom lañ salo yàlla yàlla gën ko yàlla yàlla gën koo fay te gën koo fay waaye jàmbar ji ñuy waxtaane Euh, da ngay dégg Baye Sane dafa wax ne. Mhm. Euh, moog Cheikh Ibrahima Fall ñu bokk kër lu mu parental. waaw waaye man di la baatin tuuti nga xam. waaw man Cheikh Ibrahima Fall daa xëy. Mhm. wóolu ma Samba Ndiaye wàq. Mhm. wóolu Mama Samba Ndiaye njare. wóolu Mama Samba Ndiaye ngeen gi ne. waaw waaw ñett ma Samba Ndiaye la. ñu newoon ca kër bi. jox leen digal neen doom dugg nañ ci néeg bi. noonu nga waxee noonu daan wax kenn ku ne doom lay wax ñëpp ay doom la. waaw te dina firndewu ci li ma la bëgg a wax. neen doom dugg nañ néeg bi këll nga fa. na. tegal bi yoroon ko andil ma ko fii ñu toog ci néeg bi toog ñu mu dugg ci néeg bi jàppoo jàppoo këllëg dëj ko fi wetam maam Cheikh Fall gëstu ne xëy doom ubbi maam yaaram daal di ubbi mu nekk na ci kenn ku nekk ci ñett masamba yi teg sa baaraamu sànnikaay teg sa lamiñ tawam ma gannaaw kenn ku nekk ci ñoom teg sa baaraamu sànnikaay teg sa lamiñ wan chef gannaaw ba chef rek gisatu leen mu ne yaaram mu ne ko faal mu ne ko ana ndaw ñi mu ko faal de génn nañu mu na ko wax nga dëgg yaaram mu ne ko faal mu ne ko doxal woteel ma mm. maam yaaram ba génn daw wote ji maam Cheikh Ibrahima Fall ne maam Saliou Fall Saliou mu ko Fall mu ne ko yaram comme jàpp ci loxoom indil ma ko fi man man Cheikh Ibrahima ko tokkantal comme ci loxoom indil ma ko fii mm-hmm. man Ibra Fall maa ko tokkantal te ku ci nga bokk waaw su muy daanele kàddoom mm-hmm. maam yaaram ba jàpp ci loxoom maam aatu maam Diop <laughs> te dégg nga léegi maa san nee na la ñoom ñaar ñoo bokk këlu perentam ñu fat ko la ko du moroom ku yàlla sàkk hmm. bokk ci dégg nga wax ji hmm. danaa wax ko doon sëñ ba maalam mag ku dul sëñ Bamba maalam sëñ Tuubaa gone waaye mag laa woon wallaahi maam nee na maam maam maam Atumaan naka mu gis maam maam Cheikh Fall yooyu ci néeg gi hmm. ay tànkam dam mu tàmbalee raam lu doy waar foofu ndax tàmbalee raam rangoñ bay ko ci ci ci ci bëtam di jaar ci dënd bi di wàcc maam Saliou Fall daw taxaw ko raam ne ko sa ne ko Atoumane nan la xew maam Atoumane Diop raam ne ko kee xam na ma xam mm-hmm. mu del laaj ko ba muy ñaari yoon mu ne ko kee xam na ma xam mm-hmm. ba ci ñetteel bi yoon maam Saliou Fall ne ko ay Atoumane wax ko xam naa xam nga waaye Saliou daa war a xam mm-hmm. xam nga ne maam Saliou Fall ak maam Atoumane Diop daara ju maam Saliou Fall ma sa sanc ñoo ko li seet la ñoo ci kaw kii seet ci suuf waaw waa Mirina kay ngi ñuy dégg. Mhm. tabarkalla waaw maam maam Atoumane listixaar Mirina maam Saliou Fall listixaar kër Cheikh. Mirina la Cheikh bi njëkk a wàcc. ci ngoog 1918 dafa jógee ñëw kër Cheikh sanc fa. 1930 mhm. mu wàcc liggéey foofu yóbbu ko ko war. Mhm. ñoo ko daan sancal ñoom ñaar. ndeysaan loolu xam naa mbir la nag. waaw mu ngoog waaw li war a ñu ko daan sancal. chèvre defantewul ñàkkul dara la waaw waaw mu ngoog. ne ko Ibrahima mu ne ko Atoumane mu ne ko Fall. mu ne ko dama bëgg nga wax ak jaam ñu dégg mu ne maam Saliou moom ma ma ma ma lay wax de mu ne maam Saliou Saliou maam ji de xam na ma xam mu ne ko lu mu xam mu ne ko sam xel daa dem ci démb ma loolu ma tax a jooy loolu moom yàgg ñoom ñaar ànd wuñ hmm. àndee ca Belal Diop waaw hmm. loolu daa ko indi saayir hmm. waaye baatin bi maam sa maatumaa dafa wax ne sama xel daa dem ca démb maam Saliou Fall ko Saliou wax na dëgg Atoumane fàttewul mag moom ba nu àndee may wërali jaam ngi seen ndoxu bët. loolu yàgg na ne ko Atoumane daa fàttewul mag may wërali jaam ngi seen ndoxu bët. kon xam nga ne kon. Cheikh Fall yàgg na. waaye yàgg naa dimbalee. ay mbiram nag moom du ma ci jot. dañ dañ bàyyi ca ma Atoumane tuuti rek ba ñëw. mu jox ndigal ma Atoumane ne ko Atoumane mu ne ko Fall mu ne ko ndax yaa ngi seen gi mu koy gis. mun na ko demal nga barkeelu fi maanaam man dafa dëtama ci këll gi dëtam mhm. teg ci ak gémmiñam ci këll gi la rek këll gi fees dell ak lem mhm. mu dëtama ci naan ci naan ci naan ci naan ci naan ci ba mu xippee ba mu ji ba mu siggee mhm. bàyyi ko fa dara ah. ndigalu Cheikh Rafal jëfe këllug lem waaw këllug lem nee na bi mu siggee loolu gaaw la xew dibéer altine ñetti fan la def maanaam di ko nelaw hmm. léeg-léeg mag ñi dañuy ñëw ci maam Cheikh Rafal ne ko atu man daa mel ne lem gi daa sàcc suukar dañoo bëggoon nga dimbali ñu. su ko defee ñu yóbbu ko docteur. maam Cheikh Fall li muy tontu xam nga lu mu doon. doom dellu leen fa ngeen newoon. atumaan daa doxantu ji ba dëppee dikk. yàgg naa doxantu kenn daa tasineer. waaw saa bu saa xëy ñaar dërëm lay dem ci géej gi. waaw te tax nga lay def ñu ñaar dërëm. bu ñëwee indi bu ko sëñ bu maam Cheikh Fall ne atumaan ana foo jëlee mu ne ko fa nga ma denc fa nga ma denculoo woon fa lay jëlee. fa nga ma denculoo woon fa nga ma denculoo woon fa lay jëlee. ñoom ñoom waaye ni ñu déggoo woon. ñoom ñaar kéemaan am na ku ma si ñëw ci maam Cheikh Ibra Fall ne ko damaa bëgg di doon sa xarit mu ne ko doon sama xarit ndax dina yombati hmm. kooku ne ko waa ah Fall mun da moom laa bëgg doon sa xarit rek laa bëgg mu ne ko ndax nit mën naa xaritoog man ba mel naa ni ma ni sama digg ak Adama ndax mënit naa am ca àgg ci ne ko doom ndax ndax ni yàlla mel ak Ibrahima mu njëkk ma mel naa ko Ibrahima nit mel dina ko mel ak Adama sama diggante ak moom hmm. ndax fi mu ko tegoon ak ak fi mu doon doxantam moom dañoo bokk lépp nag hmm. gaaw mhm. dibeer mhm. altine ci yoor yoor mhm. moom atumaan na tafet ñaq topp ko ñaqu rëy mag ñi daw andi ko daj ko ci kanam maam Cheikh Ibra Fall ñu ne ko atumaan ana la ko ana foo demoon ma Cheikh Ibra dañu da ngaa doxante ji ana foo demoon mu leen moom mi xam na ma xam maam Cheikh Ibra Fall ne ko atumaan wax leen fi nga demoon mu ne ko aljana ya nga réservé doon ëllëg taalibe yi nga xam ne dañ lay dégg rek duñ la gis te bëgg la lool sopp la jaral leen lu ne nga jaral leen lu ne aljana yooyu moo doon am ndoxum liggéeyante na lépp ajal la ko yónnee du ci ñi kay fonk gi Cheikh Raheem Fall fonkoon bàyyi ma indi la mbokki Atoumane maam Atoumane ak si Tuubaa Cheikh Raheem Fall ak sëñ Daaru Asan ne gars yi dañuy wax ne yuga ma yuga njëriñ Njaay saali xarit ngoon ma gànni Birane Diop waaw andi na ci daara tuuti ak sëñ Papa Gueye jaajëf boo dooree ci aboda daay suñu doom mu nga xam ne mm-hmm. wa taaxaati wasfini min daayi sirran wa jahran bi abi dardaay abo dardaay mm-hmm. mel benn lamtoor a jaate mm-hmm. fatimata jaate ahmadou fatimata suraaxel bul melentaan gàññu suraaxel euh, amari gañ biraama Cissé siré xuja maamu jabata soxna xuja Cissé amat ali Bousso ahmad soxna Bousso maam jaara Bousso cheikhul xadim ña nga daje ñoom ñaar mhm. boo ñëwee maam ca maam atumaan mhm. ca ca ca fa leen daje mhm. ca daddaay seer maram dagal abo daddaay ah, wàccal seer maram roqee njaay demel na sit fall amar fall seer njaay mahamadou roqee maam seeni bu njaay maam <laughs> seer rang ah, maam saliou maam atumaan boo tuddee Abada Day da nga tudd moom sëñ Daaru Asan ndax moom ñaar Njaajaan Njaay Njaajaan Njaay Bakar waxi Samba Saño mhm. ma jaay Faati mhm. ila axiri ba ci maam ba ci maam Daaru Asan waaye bu la neexee yëg ba ci kaw hmm. ndax ci askanu rasulilahi la bokk sallallahu alayhi bu tànnee mbir mhm. da koy boole ci askan wu tedd bu baax Sëriñ Tuubaa mi gis nga dégg nga gaa yi baax yi wax nañ ci ba tey Abdul Manaaf Hashim Abdul Matalib Abodadaay Njaajan Njaay Mbaabu Mbuur mi Njëme Ndemba Njare Maam Maam Njare Njuga Xëri Sala Sala Diop Xëri Diop Ngoone Diop Maganne Diop Biraan Diop mbër gu da koo tànnal loo ni ngi ko tànnal ma ma atuman Diop xam nga nga ñëw fi kër ki nga xamante dana yàllaa ma ne doy na waaw yàlla mu ne. tey gis nga doon Baay Faal. Mhm. daa gën a wóor lu dul loola. xam nga lu tax. Ah. dañoo xëy bis suñu baab. Mhm. ci ca daaree makka loolee. waaw. Mhm. ba trois heures du matin. maa seen xorondom nee na. maa seen xorondom. suñu daaree dafa ne ko dénkoon maa ngi koy Baay Faal. nee na tëddee ba xaaju guddi. ñu jékki-jékki kër gi leer nañ ñu mel ne yor-yor. bëccëgu ndara kam. ñëpp jaaxle. maam Saliou Fall ne maam Atumaan mu ndax kër gi njuuma dafay dugg mu ndax kër gi njuuma dafay dugg maam Atumaan ne ko Saliou mu ne ko Fall mu ne ko njuuma ñemewul sa waaji waaw ko njuuma ñemewul sa waaji juróom-ñaari ba ko Cheikh Ibrahima Fall di am juróom-ñaari mhm. lañ jàll ca dégg ba maam Saliou Fall ànd ak sunu maam Seynabu Njaay maam Serigne maam Serigne Fall jël ci dégg ba dugg ci biir. Mhm. Ndiaye àll romb leen. waaw maam maam maam Serigne daal ne ah ndax mos xamu naa dugg du gudd fan kii li ma wan moog Ndiaye mii du ca mucc. suñ hmm? koy waxtaanee ñoom ñaar. Mhm. maam ñu gis maam Serigne Fall jàpp nopp hmm. ma ma gaynde gi. ma ma maam Serigne mhm. Ndiaye. ko kee di sunu ndey. dafa mel ni daa wax ne dara ñemewul te ñun sunu ndey comme ñemewul jaaral ñu. duñ dellusiwaat. Mm-hmm. Ah, waaw danañ dellusiwaat su yàlla fa dara. waaw waaw tey de am nañu gan. moom kay yaa wax sànq. waaw waaye nag ku am gën mm-hmm. mel na ni. Mm-hmm. fi ñu ko teg baax na de. waaye nag lépp kenn du Cheikh Atoumane Diop. xam nga dégg gi mu déggoon Cheikh Ibrahima yéeme waaye nag comme ñoo bokk lépp noonu lay mën a demee. dëgg la ndax gis nga téléphone nii sax. téléphone. daanaka ñoom ñaar. bañ koy def. booba téléphone xewul. waa ñu na sax dana xew. Cheikh Ibrahima bu masaana soxla waaw waaw Cheikh Ibrahima soxla dara ci moom day jóg rek na aatuma nangam ak nangam ah. naa aatuma ngi toog fa toog na sama sang ba nee na nangam ñuy eh. communiquante ci noo xam ne <laughs> waaw loolu waaw di connexion ma boobu moo tax loolu dama waaye signalin waaw ci ci ci lu leer ndax li yéeme mooy mhm. eh, dégg nga la wax si zahir mhm. ñoom ñaar daanaka ñoo ñoo ñoo ñoo defandoo lépp waaw ndax weesuwul. Mhm. ndar gu njëkk nga. waaw Cheikh Ibrahima dem na ndar laata. Mhm. sëñ bi sëñ sëñ sëñ papa Gueye wax na ko léegi. waaw laata sëñ Tuubaa di dem di di si géej mhm. euh, gannaaw si bi la la fa la fa la delluwaat. ba sëñ Tuubaa ni mu ko fa fekkee. kon dem gu njëkk gi sax. nga gis ni ànd naat moom. waaw kon moom ku takkoog sëriñ Tuubaa ku takkoog maam Cheikh Ibrahima Fall la si bépp anam. ba niñ ko noppee gis si si si zaahir. waaw boo gisee. Euh, sëncal gi mu daan sëncal mhm. Cheikh Ibra mhm. ak mam Saliou ndax loolu nga album ma li tuwab di wax ko am confiance deug deug deug mhm. ngay jox yenn ngay jox yenn yenn décision responsabilité ak yenn dossier waye nak li war loolu la lay bëgg wax tay ndax sanc mom du du du mbir ci caaxaan eh, eh. nga doom joji di wax ci Cheikh Diop kër bu neeg ba takké ci kawam ci ndànd ñuy wax ni ni ni Saliou Diop a ngi ci biir neeg bi Cheikh Atman ne tël dañ tay ma fay sawara yu ba fay sawaraw ëlëk hmm. maam Babacar moo ni tëll ci biir néeg bi daal ni ko doomi bàyyi ma moom laa leen wax daal nuroo woon ak Cheikh Ibrahima bu ba daan seetu ci moom lay woo moo ni tëll ci néeg bi daal ni ko atumaan lu sa yoon ci sa ëllëg ni ko xanaa gisoo malaakal mawti ñuy taxaw di jël si ruug Saliou jóg gi ni ko waxuma la yoromu boppam yi di di lakk waaye mbubb mi mu sol du xeeñ eh. néeg ba dafa tàkk ci kawam dagg puj ba fekk si ko mu wàcc ab liggéey ci biir lakk gi te yëre yum sol lakkul yére yooyu la Cheikh Atman daan sul fu mu ko hmm? Hmm? Hmm? du Cheikh Atman moo fu mu sanc dagg ko sul ko fa foofu du lakk moo tax mu daan sancal mu daan mu daan mu daan mu daan suñu waa kii nag moom euh, nit ñi dañu war a moom rek lañu war a di jàngale maam Cheikh Sidi Biraye bi rek xanaa xamoo ni nit ñi ñàkk koo dégg moo tax yëpp xew ah, lu ñu dal loolu ñu ko teg de ñàkk dégg Cheikh Ibrahima mm-hmm. ñàkk koo comprendre waaw mm-hmm. ndax moom dafa daan wax ni mm-hmm. sëñ Bamba xoolub asamaan la daa doom xool asamaan taxul nga àgg ca waaw man Cheikh Ibrahima nag suuf laa lu waaye diis teg ma lu waaye bu xëpp ma waaye loo wax ma gën di rafet waaw mm. boo gasee jëm suuf lu mujjee génn mooy gën a bees du yàgg si moom mu def ko muy suuf. daa dox daa doog yoonu murit ñett koy doxal ba ñett. ki woyof na koy dox. waaw ki xam ma naa xib yi sëñ yi na koy waxtaanee ci aw sa ngay dimbalee te yàlla tax. mooy xaaj bu njëkk bi xaaj bu ñaare mu ne ah, doom jébbul laa mooy arxuraanul karim boo jébbulee lu arxuraan di tere bu ci sa tànk tere mm-hmm. tege mm-hmm. daal di jëfe ndigal bàyyi tere mooy xam-xam ñàkk ba mu la nga def ko ci yoonu yàlla loolay lislaam waaw kooku dañu war di dañ ko da arxuraan mm. araf wu ci ne sëñ ba daa wax lu tax mu jóg ak fa tax mu jóg ak ka mu jóg waaye mm-hmm. araf wu ci ne Cheikh Ibra daa jëf lu tax mu jóg mm-hmm. Mm-hmm. gis nga ndar googu moo gënoon a siwisé ci góor ñi maam Cheikh daal yi mu daan sol te ndar lépp fa daal yi mu daan sol Égypte leen ko daan commandé ci jamono yooyu setal dëkk ba rek la daan def waaw ah, day feeñ si nataalam sax ndeysaan lii lii mu sol nii ci nataal bi jamono yam koy sol. Mhm. jamono yi nit ñi amuñu mbubb amuñu tubay. deug la waaw ah, jamono ju métti. mu sol palman mm. ba léegi palman da riche. li nga xamni ni xoolal mm. biir li mu wax ni suuf la loy waay dis la teg ma loy bu xep ma mm. waaye lo wax ma gën di rafet. moy mm-hmm. la la natal bi di wane. Mm-hmm. kaw ge ñuul biir bi wex kaw ge ñuul biir bi wex té bo gis nga mas nay setal dëkk ba ndar bàyyi Ibrahima Thiam mu jaarim nek ca bopp ba. ñuy setal dëkk ba di setal dëkk ba ñëw ba ci benn gox fekk fa lu mel na dalu foos mu dis lol mhm. Cheikh ibrahim ñëw diko lu fi def mu ne ko daa neexu la yëkkati mhm. dafa dis maam Cheikh ñëw di ces dal bi mhm. yëkkati ko ba ci dënnam daa ne ah bisimilah jam daal di koy dóoraat suuf daa he he ibrahim cham mu ngaa mu ne ko adom fi kët buntu la Cheikh Abdou Khadir Jeylaani dafa am buntu fi ba ibrahim cham ni ko faal ah, Fall man de loolu ëpp na mun ko mu ma yëkkatee xeer yi Cheikh Abdou Khadir laa seen muy kan nak ci juroom ñaar bi mu mun ma yow kan man mel na Ibra Fall mu ne ndax bis penc dafa jot mu dee mu ni ma dellool ma sama bunt bi loolu tax ma delloo <laughs> keroog dafa wax man ñi daal Ibrahima Thiam mu ni ko Fall mu ni ko doom lambi yàlla ajuma lay tëgg waaw gaawu làmb ja xumb lool dibéer làmb a tas daan mm-hmm. doom du ngeen ma laaj ku daan maa ngi ñuy teg mun wax ku daan duy teggin waaye ba làmb a tasee yàlla gërëm na ma ñetti yoon mm-hmm. yonent bi gërëm ma ñetti yoon sëñ Bamba gërëm ma ñetti yoon daan ne ah doom keroog laa raw bët raw xel kon borom bët yi ak xel yi neen tey ci rafa waaye ak <laughs> raw bët raw xel waaw raw xel fii mu ne nga toog nii sa xel mu mas a jaar rek léegi mm-hmm. léegi mën na mën nga faa jaar léegi léegi léegi léegi wër àdduna ñëwaat wër àdduna ñëwaat kon maam Cheikh Ibrahima Raw waaw la kenn xamul lu la kenn xamul lu moom la kenn xamul mu doon mm-hmm. léegi nag dangay ngay xool ñooñu ko toppoon mm-hmm. nga jël Cheikh Atumaan mm-hmm. jël Baye Mor Ndiaye tomb deel Mor Ndiaye dànq jël Baye Thierno Sall am na tey foo góor tey foo daa nekk doguma waaye bis ni ki tey dañuy fàttaliku Baye Thierno Sall waaw

Mhm. Baye Mouhamadou Touré na ko doo deetu mu na ko déedéet dee ñu taxañ taxañee ma denc ma si saa si fàttuma laa du def nangu damay dem ba gébb ba doon ñàqale Cheikh Rafal ma faatoo fa su ma fa faatoo suñu ma fa yenoo jëm sëñ ma bàkk ba waa armée xam ne Thierno Sall eh. ah, daal di gont dem gébb faatu ñu fanaan na ko ca Loroga <laughs> di ji gébb indi ko Touba denc ko maam Thierno Sall moomee mhm. Baye Mouhamadou Touré na ko kon ndax boo fi jógee sañ naa laa ñaanal mu ne ko waaw mu ne ko nan la lay ñaanale mu ne ko sëñ bamba ak seerafal képp laa mbooloo tudde lo tek baax na bis ni ki tay lañ koy fatali ci tu gis nga karok bamuy ay at nak musuma ko tànn gis nga ba karok bamuy bamuy def loolu keroog ba muy def loolu am na jëmm ji ci bërëbu cheikh ibrahim ñu ko doon wax bàyyi tey for waaw ko yoram rab ba bo ma masaan rombu yene neew yore neew bu ko ci di yàlla xiiree boo yoree rombee yore neew bi daa la ah, Moustapha ndjay neew bi nga yor déw la tudd de hmm. ki mi la wax lay doon hmm. nga ne amul ah, mun ma nga dekk lugo hmm. ah bo demé neel diw na waj moy top ci mom ñoo xam ne xew nag kaa moo tax keroog ba fa bàyyi Thierno Sall ñooy dañuy bàyyi Thierno yet wi yow la dal tey Cheikh Ibra yow la wax mm-hmm. waaw bàyyi Thierno waaw bàyyi Thierno ni ko neen seex Ibra lànk naa lànk waaw man ma ñëw tey fii gébb ñëw Touba tey dee tey ñu sul ma tey day yomb damay dem ba gébb fa ma liggéey doon liggéeyal yàlla mm-hmm. falaay faatoo ji falaay dem laaj samay laaj samay samay jaxal togg ci samay reer naan ci café yéey ci guro bu guddee ma faat loolu la def waajal na loolu lépp fu ne jaar nañ fa waaw magi Cheikh Rayane daal si daal di ñëw si sëñ Fallou Fall wax ko ko mhm. ñëw ci maam Cheikh Fallum sëñ Cheikh Fall Mbawar nee na ma keroog beem bu giri ba ko yóbbu gébb sama bàyyi sëñ Cheikh Fall ak ko jox waaw eh. waay Thierno waaw loolu te kat mhm. nee bu ngeen jékki-jékki na li connexion bi am ñu amoon boobu fi doom de hmm? boobu fi doom hmm. Cheikh Ibrahima nekkoon dem la wuti yàlla Cerno Sall nee mën a ko faal mun a ma lu waaye di taxawal ci àdduna caay caay mën na ko moom des yàlla hmm. bàyyi Cerno fay teg sa dara sax korom laa bàyyi nangam ma ca teg ma ilaaha ma ah, xool ñoom ñu ah, mag <laughs> ah, ca Makka loolee xew na fu lu nu mel eh, ba Abdou Awa Gueye daa wopp ma Omar Ba xëy na maam Cheikh Ibrahima Fall dee daf may xëy ci kër gi ci hmm? mag na ko dee daf may hmm. na ko dama ci ne ko na ko fomm na ko fomm hmm? ko fomm ñu ñuy fekk maam Aduma ngi wér ci neer gi mu song ko waaye maam Aduma nag amoon na lu doy war yàlla sa ne wat waxtaanee ku jigéen la du ko ko nee fi mu wéru ci neer gi nee na daw naa song ko waaye dafa mel ne benn ngelaw lu may dëpp lu koy wër doon ba loolu dafa ba léegi nii boo xoolee ci njaboot maam Cheikh Ibrahima ni góor jigéen da ngay gis seen yaram bi day seddu bi la raar nga ci lamb nuyoog njab ku bokk ci maamatumaan loxom tànk raar waaw loolu ñu ngi ko doon ci maamatumaan day dox si ci ñoom mhm. dégg nga uh-huh. nee na nee na bi mu daal song ko maamatumaan mu nga ca kaw di sori mhm. nee na ab diir mu jekk-jekk gis ko mel ni kuy kuy xëcc di ñëw mhm. nee na dafa loxo bi mel ni ko ku tëj ku tëj ku tëj ku tëj frigo bi kon ne nii nee na mu mel ma meloon ne ku doon xëcc ba xëcc ba bàyyi ko. Mhm. nee na ma daal di daan. bu ñu yesee daal di ko ne Cheikh Fall nee na nangam ak nangam. Mhm. ma ko demee ne ko demee man maa ngi atoon Diop kii man yàlla la woon sëñ bi fukki daara ak ñaar. Mhm. fukki daara ak ñaar ni sëñ ni sëñ Tuubaa fonk alxuraan. sëñ Tuubaa jëlee na fukki daara ak ñaar dégg nga ko maam Cheikh Ibra Fall. daaree Baye Modou Pène ci la bokkoon. waaw daaree maam Loxaye Fall ci la bokkoon. dari mamur mamur Kanji. Mhm. ci la mamur waaw daara Mamor Ndiaye Sala. Mamor Ndiaye Sala. ci la bokkoon. Mhm. daara Mam Ba. waaw ci la Ndim. ci la Madinatul Munawar. Mhm. ci la bokk. daara Sama Diop. waaw waaw te boleh yu boleh, bë dox ba Rafal bis. ne ma ya yaay jëwriñ mu ne ko faal. mu sama sering daa bëgg alxuraan. nee na mën nañu nga dugg ci àll ngol njaay bi kenn ku nekk di taxan mm-hmm. ba ñu taxanee ba fajar gi xar mm-hmm. kenn ku nekk li nga li nga li nga li nga tiim cim xat mm-hmm. dalaa tiim mën a ko yëkkati ñëpp ñu amul jaaxle ci yëkkati ko maamatamaa ne leen doom nañu rey suñu suñu kaay la ñu natt sama sëriñ bi ci ne ko faal mu ne kenn ku nekk ràbbale say loxo ni ni ko maam Serigne Fall lañ defee si mbir mu sax daana ci rey ñu tudd yàlla ba takkusaan nee na ngeen ràbbale seen ay loxo yëkkati ko sa kaw tudd maam Cheikh Ibrahima fa ñetti yoon hmm. kenn ku nekk ràbbale sa loxo ci kaw hmm. yëkkati ci kaw tudd maam Cheikh Ibrahima Fall ñetti yoon say wi nañ nag kenn tegu sa bopp mu ne doom bu leen daw hmm. bu leen dox ñukku ñukku leen ba àgg ci daara ji ah, ah, waaw secret baa ba àgg ci moo woote lu ko jar doom maa gën a gaaw mu waxtu danaa ñëw nu ñukku ñukku ba àgg ci daara ji ji kenn ku nekk da ngaa rom maam ma ñu ngi ko fekk mu wéeru ci ci barak bi ñaq wi di ko war fajar jamonoy sedd ñaq wi dafa war ku yes si da ngaa jàll ci tokkoor ba yénn ko sa say ñoo dikk ñoo sëkk nuyoo mu fay la bi maam atumaan ñëw ne ko ah atumaan na ko mu atumaan doom yërëm leen atumaan doom yërëm kenn ci yéen ko yéen lépp yi bi dafa la ko yéen da leen a tim rek da leen a tim rek lépp Ibrahima Fall kooku kooku kooku neexut a waxtaan. waaw ah, kooku neexut a waxtaan bi gis na secret baa ngi ci woo Cheikh Ibrahima. Mm-hmm. maa la wax loolu dëgg la waaw Cheikh sëñ Papa mm-hmm. junj na ko léegi. Mm-hmm. sa waa ji moom. moom xanaa xanaa xamul la xew waaye ku yeewu dara ci moom doo ko fi teggi. jotul ñu waxtaane ñi ñi ñi toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall. Ah, dañ ko amate lool. waaw xam nga xam nga xam nga ku maanaam. te kat danaa la wax lenn. Ah. xam nga tudd na fi sëñ Mor Ndiaye Tomé day maam Thierno Sall. Mm-hmm. tudd Cheikh Atoumane. Mm-hmm. ak non sore. lool ndax kee ca mag ña la bokk. ma am lay xaar ñu mujj defar ma ma am na defar <laughs> ah, te kooku nag dafa garaw mm-hmm. kooku nag. ñooñee dinañ si ñëw xoola. Eh? Cheikh ah, dafa génn ca ceddo ga nag. ñu indi ko. ndeysaan la jor waaw ma ngoog. ndeysaan dafa génn ca ceddo ga. Cheikh Ibrahima sëñ bi dim di jënti bépp. dëgg la sëñ Pape ca mag ña la bokk. Ah, Cheikh la waaw. li mu lijjanti li maanaam moo lijjanti adduna bi xanaa xamoo ni euh, moom ci jëmmi boppam yéeme gi mu yéeme moo doy waar moom Cheikh Rafal mm-hmm. mas naa woo ñetti téeméeri donga ak fukk ak ñett ci jaaree mm-hmm. bàyyi ma faal jeg nekk te bopp ba dinaa doom kaay leen dem gébb mm-hmm. damaa gor Tuubaa ñetti fan sëñ Tuubaa yebal ma gébb ma gor fa ñetti sebb waaye sëñ ma Babou Guèye da doon xor-xorol ba teg ci ba bëtam ma teg sama tànk gërëmal ko mu dem ba sam-sam mu doog a sanc daal leen di jox suuf ne bu ngeen demee na ngeen ko wërale seen jëmm mm. bu ngeen fanaanee bu bët set fa gis waxambaane bu bépp mm. bu ngeen gasee suuf ga da fa fekk nangam ak nangam gébb ngoo mm-hmm. ñu départ ñoom ñetti téeméer ak fukk ak ñett bi ñu mm. ñëwee gébb mm-hmm. dañoo ñëw tëdd jël suuf si wërale seen jëmm yi mm-hmm. bi ñu xëyee suba tànki bukki yeeg yee doon leen wër waaye agsi wuñ ci ñoom buñ xëyee suba ñu gis ca suuf bëgg gas ko fekk ca la leen a Rafal waxoon bàyyi ma faal da ngeen kon gébb a ngi nii waaye nañ leen jaayante ak moom nañ takk suñu bët yi ñun ñett téeméer fukk ñett dugg ci hmm. timis jotee ñu dellu siwaat ci bëgg gi bu ci xaaxam jamee nit ñu xam ne ñu jaayante ak Cheikh Rafal eh. <laughs> gébb yàgg na ci loolu <laughs> ñu takk seen bëgg hmm. wër hmm. di moo du Modou Mbenda war ab landarweer di ko seexaroon toog ca kanam sol dara ay cawal yi ak kaal ak mooy luus bu ñëwee ci biir gi toog wër leen ci àll bi gisu leen mhm. gis tuut ñu agsi mu ne am ma faa jëng doom warloo ngeen ma li ba ma sonn ah doom bu liggéey bu ngeen ma ko defee la ca teg néexu la wax ci ci néexu wax mhm. waaye dañ leen mhm. keroog dañ leen cin ñetti wos ñeen béb gii ci gébb faal hmm. waaw hmm. mu ni Seexul Xadiim fee mu tëdd ak béba fa nekkoon waaw mu ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa mu tëdd ca Madina ñetti ak béba fa nekkoon hmm. daal neen ñetti was yi ñoo ngànk àdduna daal neen yéen ñetti téeméer ak fukk ak ñett yi ma yebaloon gébb nag ñetti téeméer ak fukk ak ñett yi àndoon ak yonent bi Badar lan amoon defal naa leen ko tey ah, ah. sëñ bi gébb ah, ah te kat danaa la wax leen de fi mu ne moo garaw mm-hmm. sam-sam boobu nga tudd waaw mm-hmm. sëñ ma baabu mm-hmm. xol Madina Touré sëñ Mor fatou Touré. ñu mm-hmm. ci ca ga. Mm-hmm. daru mukti mm-hmm. borom daru mukti lolo wër gébb gébb wa gébb ci tundu doy war la nek motax Cheikh ibrahim nee kaw gi nanguna suuf gi nangul na. waaw kaw gi nanguna dom suuf gi nanguna Cheikh ibrahim ko wax de. fofu lu na xew na fa. mo wax la lu gatt rek. ma ngi dañuy sekkar Cheikh ibrahim gi top ñu sekkar bam mu taw bo sóob. ndox mu bari di taw. ñu bayyi sekkar ci seru taw. Cheikh Ibra nag gees na yaaram mbay mu ne ko faal mu a ko lu tax turu yàlla yi moo doon dégg déggatuma ko ñoo ko dañuy seelu taw mu ne ko génn ma toog gi loolu gémbu la xewee de mhm. ñu ko toog gi Cheikh Ibra Fall toog ci digg ndox mi ñu mhm. sotti ko ci kawam maa ngi ñu gis na Cheikh Ibra Fall la ngi taw te ñu def kenn par kenn di génn mu ne doom lu tax ngeen bàyyi turu yàlla yi mhm. ñu ko dañ doon seelu taw mu ne a ah doom bañ a xam bañ a tooy bañ a xëm bañ a xëm bañ a tooy bu doon <laughs> bañ a tooy doon ndax yow ma la xiyaam kat dara mënu leen taxalak ci jahannama kon bu doon bañ a tooy gébb loo ko Cheikh Ibra garanti hmm. maa la wax loolu gébb lu na xew na fa hmm. parce que hmm. yoon woo ah, yoon woowu yóbbu <laughs> waar la waaye si nga sax xam naa signalé na euh, xam naa jotaay bi daal tey man xam naa kenn mënut a xàmmee waxtaan nga dee invité yi rek. xam naa li nga wax Cheikh Moussa mu ngi indi sànq lu ah, am solo aussi man a kenn mënut a xàmmee fi noonu waxtaan invité yeeg invité yeeg kii ak mm. ak ak kii de xam naa kenn jaar baax <laughs> ah. ndax ndax dañoo yàgg bëgg jotaay bi. waaw xam nga loolu la. dañoo yàgg bëgg jotaay bi. Mm. te mm. yàlla doo koy dogal tey. Mm-hmm. sëñ Aline. ñu ngi koy nuyu. looloo ma sa ah, yàgg na ko tuuti moom moom waaw toog fekk benn barab ñuy waxtaan. Mhm. mu daan mu daal di génne addee jox ma ko daal ne sama gars yi xanaa xamuñu la. Ah, ah, mu daal mu sama numéro ci la ko ñu la ko. wallaay wallaay jël ko joxe fekk nag. Mhm. Euh, mhm. gis nga yaaram. Cheikh Ibra yoonu sëñ Bamba bi bu doon. ngoro bu ngoro gi tasee Cheikh Ibrahima la ñuy delloo alal ku am Cheikh Ibrahima may ku ñàkk moo la xaj mm. Mm. yoonu sëriñ bi bu àndul ak Cheikh Rafal mi ngi na nga sol tubay ah. mm. ah, mooy mooy mooy yoon bi mm-hmm. faw nag ñu gis nga Baye Makhtar Dieng mas naa ñëw nuyu ko mm-hmm. maam Cheikh daan ni ko ah Makhtar doom ana waa ndëkk mm-hmm. ah, mun ko ah doom boobu eh, sas am Cheikh ni ko ah gor ken du ko tobbil lu sas hmm. demal def rek dom lo am indi hmm. mun ko dama beug nga tobbil moom sas hmm. mun ko adom ah, sas na la fukki dërëm waw mu dem nawet bu bay ba nawet bi jeex mu ñëw yoru lu juróom-ñaar mu dugg saxaar jëm ci njaarim waye kim dendal dafa yore marché ni mo xam dañ koy téré ñu bokk ñom ñaar benn place bu ñu toog ñuy contrôler saxaar gi dugg borom bagage mom jaar ci fenêtre tari jall seigne Maxtaar mom tok ñu ko ko bagage mu ni xanaa xamul dañ koy terminer déet ñu ni ko wàccal wàcce koog bagage yi ñu di ko xool ba ci bi kii dof la bàyyi nañ koog bagage yi bi ñëwee nuyu maam Cheikh Ibrahima mi ngi ko fekk mu toog ci néegum ñax wéeru sàkkatu xat jublu penku mu mm. mm. ñëw nuyu ko daal di yëkkati fukki dërëmi nguur doy jox ko maam Cheikh ni fukki yi peese ko ko xërr ci suuf ah maxtaar mm. ne nga ne waa ndëkk doom ñu nga nga fa mu daal di rocc ci bantu xat bi mu wéeru fel juróom-ñaari mu dem fee mu fel ñetti dërëmi mu dem ne sëñ maxtaar boof ne jàkkaarloo moom am ku taxaw ci buntu kër gi daal ni jaay yalla ngi waaye yàllaa ngi yeloon ya, mu ne he hee doo te nga ni jaay yalla ngi yalla waaye yalla suñu bam hmm. sa waay cheikh ramal neena jaay yalla mo yalla waaye waaye yalla du yalla yalla mo ko bañ ni yalla def waaye waaw mo waaye suñu bam ba suñu bam ku na xam na na waaye yàlla ku na gisoon ko yalla def waaye gisee kérok bi nga xamanteni ni ñew na mu yëkkati ñetti dërëmi ngurdu yu jox ko jëmu joot doon yelwaan muy ñaan ba ñaan ba xawatul fu mu lu muy ñaan maam Cheikh dana ko ah doom xaw ma yaa war a sant xaw ma borom ñetti dërëm yii nga xam ni mi ngi jóge ca marchandise waajooje moo war a sant xaw ma yaa war a sant daan ni ko ñetti dërëm yi nee na waajoojee maam ju masam ma ñu jéng sa war bi ñetti dërëm yi tegee sama loxo maam ju masam ñu jéng ko sa war a dajji nañ seen jéngee àjjana la ñuy fanaan bi sëñ maxtaar fettaxee ci biir permi la jaar jàll kenn moo tax euh, sëñ sëñ sëñ mm-hmm. Moussa daa mel ne sax xam naa ne ñu ngi ci catli de waaye dama bëgg na xam dafa wax ne léegi Cheikh Ibrahima mooy yoon bi mm-hmm. te aw yoon bu ñu koy sàkk xanaa dox caa taxawaay toog taxut mm-hmm. mel na ku toog bokkoo de ndax ku toog ci yoon bu ñu la rombee sëñ bi jugal yoon wi lañ lay wax <laughs> xam nga dama la te kenn waxul dëkk murit yoonu murit lañ wax te yoon wi gars yi xam nañ ne Cheikh Ibrahima daa murit ma waaye message léegi na ma mm. xise bi da koo bàyyi mm. ci bi ñuy nuyoo waaw dafa leer nañ bëccëg gi guddi gi mm. dafa leer nañ dañu xëyee wax ko Cheikh Ibrahima bi ñu amee jaaxle maam Cheikh ne leen doom maa leen ko fàttee wax. Mhm. Atoumane mën na ko faal. Mhm. mu ne ko bi ci guddi Jibril alayhi salaatu wa salaam daa tàggu sama sama sëriñ si sëñ Bamba. Mhm. ne daa bëgg a barkeelu ci seen ñaq yéen ñi may liggéeyal. tey ñaq ah. la Jibril doon barkeelu. Mm. ñëw gi muy ñëw nag mu indaale leer googu. Mm. nee jàpp ne ñu ma dugg ci kër gi fekk di barkeelu ci seen ñaq ñoom. Ah. nga xam ne Cheikh Rangé Fall amul morom. bokku ci maam Atoumane toog na maam Amar ba toog. aw nag romb leen. waaw ñu toog ci nawet gi maam Atumaan ne maam Amar ba ne maam Atumaan man de mën naa ñaan ci barke Cheikh Rafal ñaanagul de. mën naa ñaan ci barke Cheikh Rafal nag wee am doom ju góor. maam Atumaan ne ko man itam de mën naa ñaan ci barke Cheikh Rafal nag wee am doom jigéen. nu bàyyi noonu. ab diir maam Cheikh génn ci nawet gi toog. ñu xool gerte nag waru mbat ànd ak ñaari seexam. ne xëy xëy doom Adama ko faal Amar ba mu ne ko faal ko doom bàyyi leen di bàkk ci sama tur lu ci waaye am ko waaw loolu la waxoon dee leen ma woo ko jar dee leen ma woo ci jar du ma wute Cheikh Ibrahima ah, mu ne ko ah Fall da mu ne ko du yéen ngi seen nag wee eh, ñu gerte nag muy dox mu ne ko yéen yéen a toog fii kii ne mën naa ñaan ci barke Cheikh Fall hmm. nag waa am doom ju góor kii ne mën naa ñaan ci barke Cheikh Fall nag waa am doom ju jigéen nag waa ngeen dem am doom ju góor bu jigéen Cheikh dal di Cheikh nañ ko nag sëñ Moussa. Mhm. damaa jàpp ne faaw ñu dellusiwaat nag. Eh. signal yi. waaw faaw man de yéen yàlla. Mhm. am na solo lool. waaw faaw ñu mm-hmm. xam nga lii li ñu siy jàngat si. waaw mhm. mooy. mag ñi toppoon maam Cheikh Fall. doy nañu waxtaan. ñoom rek dañuy waxtaan ngir mën a mooy maam Cheikh Ibrahima Fall. man de maa ngi ci ñoom rek. ndax xoolal liñ dégg tey jii si ñaati waajur. Ah? waaw. maam koo xamante ni. taxoo geeg maam Cheikh Ibrahima Fall si bépp anam. baatin gu rëy ji. te lépp. Cheikh Ibrahima te nag danaa la wax leen de ah. soo gisoon ak njabootam tey su neree kii lañ doon ah da ngay da ci yàlla sax hmm. woyof gi ci ñoom waaw ak ak suufeel seen bépp bopp gi ci ñoom hmm. ak ñàkk def àdduna dara gi ci hmm. ñoom da ngay yéemu yàlla barki Cheikh Ibrahima Fall ñi xam nañ leen ñi may wax Baye ku ko gën taxawul ci kaw suuf njabootam gi mu am ñëpp la ko tàmbalee ci maam Ousmane ba ci ki ci gën a doon tuut tànk laa la ba ci maam Khadim boo leen gisee buma dajé ak ñom sax dama rus ndax lima leen wara defal ñom man mom lañ may defal muy jima jima magal te man ma leen wara magal ndax ndax ndax seeni mam ak Cheikh yi la lool moom mm-hmm. dañoo walli ci rek way ñom yag nañ kon loolu signal da ngay woné né Cheikh ibrahim yonam wi moy mm-hmm. lam ñu jangal da moy mm-hmm. wacc sa bop ak soufel sa bop ala wax loolu de waaw deug la Cheikh ibrahim nee na damaa wone ba xamné souf mo gën kaw moo tax mu jël ñëpp féetale moo tax li nga wax léegi rek dañ xam naa ñu bàyyi la nga tàggatoo sax dafa mel na waaw di santaat mbokk yi bu baax a baax xam ne mm-hmm. incha allah ni ñu ko defee tey jii mm-hmm. noonu lañ koy defee incha allah beneen yoon mm-hmm. si ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall euh, ndax moom euh, bu ñu nee euh, sëñ Bamba dëkk la moom Cheikh mooy yoon wa si jëm kon ñu ngi santaat bu baax a baax sunu gan yu tedd yi Serigne Papa Gueye si xam-xam bu rafet bi doon ku disponible lool ndax buñ ko woowee xam nga ne xat na lool jamono ji ak tamxarit bi waaye jóge ba Louga te fi mu ne nii gis nga li ko gaar si yoon wi mm-hmm. ñu ngi ñaan kookee suñu borom mm-hmm. yàlla na dolli ngërëmam bu baax a baax mm-hmm. doole Cheikh Ibrahima Fall te nañ ci rafet njort bu baax a baax Euh, euh, dara delluwaat nii Louga. Mm-hmm. waaye di bu baax a baax mu safaa Ndiaye Ndiare mi nga xam <laughs> yàgg nañ kaa dégg. <laughs> waaye tey buñ ko jëmmoog moom si eh, xam-xam bu rafet bi macha allah. Mm-hmm. lii nag du seen mujjantalu jotaay bi incha allah. Mm-hmm. si kàttanu yàlla. ñaan nañ ko Cheikh Ibrahima Fall. dinañ fi ñëwaat ay yoon incha allah. waxtaan yeneen waxtaan yu gën a yaatu bu soobee yàlla. di leen jaajëfal bu baax a baax sëñ Mamour di la jaajëfal ak mbokk yi ñu doon teew tubarkalla waaw. waaw sëñ Mamour li ma rek ñaan. Euh, mooy comme ni ko sëñ Aline waxee rek. ñu mm. jógee Louga léegi ba agsi fii sama kër benn xarit mu ngi wax Dallas Mbaye. Mm. dafa dallu ci leen ma wane sama sama jigéen dafa wàcc. Mm. xëy si bu kon yal na yàlla yokk leeral. amiin amiin daraja yi kenn doon waxtaane nga xam ni moom tëliwul dara. yàlla yokk ay leeram. yàlla boole wanale ko Cheikh Rafal. amiin di siyaare bu baax Cheikh Mor Fadel mi nga xam ne mooy sama bunt ci sëñ Tuubaa moom sëñ Mahamadou Cheikh Massamba. di siyaare mboolem jëbatuk Cheikh Modou Bougi mm-hmm. nga xam ni mm, moom diggante mag Cheikh Rafal itam lu doy waar la woon dinañ si ñëw kooku kañ moom faaw ñu ñëw moom <laughs> kooku jotaay lay doon <laughs> di sant bu baax di sant nag euh, sëñ Aliou ndeysaan mat na ko di ñaan yàlla yàggal taxawaayam amiin man dama bëgg nit ku murite ah, ku murite euh, barab bi daf kii di ci liggéeyal yàlla mm-hmm. waaye maamam mm. daa wax taxaw ci géeju gee teg sama tànk teg sama tànk ci géej gee séxéer géej bi sama balum caay du tooy jiir du xool ci kaabatu rasul du dara ci man waaye tegul ma ak si Seexul Xadiim hmm. waaw suñ tubaab mbëral bañ ci kanamam hmm. waaw loolu mooy li xam ne mooy mbir waaye mag ñi dañ ko na de ñu ngi sant bu baax di ñaan yàlla yàggal seen taxawaay ndax liggéey bi rafet na lool ndax kennal gi ngeen di kennal Cheikh Ibrahima faaw ñu kennal leen nag moom koo kennal ñu kennal la Cheikh Rafa ah, loolu moo wér mooy kennal koo kennal ñu kennal la man benn bis rek man man ñaari bis laa am hmm. màggalu Touba hmm. ñaar fukki fan yi koor ci laa yëngu ba ñëpp xam ne ndox sant ñëpp. waaw ah, doo ci ñëpp yal na yàlla yàggal taxawaay. ñu tàggatoo. waaw ah, mbég lool de moom sant yàlla bu baax. waaw alhamdulilah. Eh, yàlla. Hmm. Mm, jotaay bii. Hmm. yàlla na gën a tëdd gën a yaatu. doole Cheikh bi amiin. Eh, di itam ñaanal eh, hmm. Baye Sam. ñi nga xamante ne xale bi maatuma. di ñaanal sëñ Saliou Diop. jawriñ di ñaanal Baye Serigne yooyu nga xam kenn ku nekk ci ñoom yaa ngay taxawal jëmmi ji ngay fee barab bi nga xam moom moom la maam Atumaan Baye hmm. da congo kenn ku nekk ci ñoom yaa ngi fa taxawal bis boo xamante ne bëgg rek congo dund hmm. muy cant gi nga xamante ne maam Baye Serigne ko fay def ak gàmb gi nga xamante ne Baye a ngi ko fay def ak li hmm. nga xamante euh, noonu lañ gawee déggee fi jowaal waaye am seen mbokk moo xamante ne day jàmbaar lool mooy ba Ablaye Bamba Mbaye mu nga ca Amérique dafa liggéey liggéey bu rëy boo xamante ne nii da mm-hmm. nga xam ne kon eh, askan wi maam Cheikh maam Atumaan askane mm-hmm. jur leen rek bàyyi noonu mm-hmm. daa faral di wax ne mboolem du gaynde jur ba mu wax day fàdd mbaam mi toje yax waaw <laughs> gaynde bu jur bàyyi day fàdd rek mbaam mi toje yax nga xam ne kon kon jàmbaar lañ jërëjëf yàlla yàlla gërëm leen waaw jërëjëf bégg nag bu baax a baax bégg lool lool béggaat nañ ci yow bu baax a baax eh, di la ziar baax sëñ Aline Badara jotaay bi wax dëgg di ñaan yàlla sans borom defal la moo ci jàpp ba lii lépp sotti rek. waaw moom day daana ci biir du du du puus. du puus waaw waaw te du feeñ ci kaw. waaye mm. lépp moomu mm-hmm. nag. Mm-hmm. waaw coordonnées beeg yëpp. moo ko dox waaye ñoo ngi ñaan. bëgg Cheikh Ibra lool li bëgg di may na ko toll Cheikh Ibra yalla yàlla mu teeru um amin dole Cheikh Ibra Fall santaan nañ baax sëñ papu bi <laughs> eh, bëgg Cheikh Ibra ak dundu gi Cheikh Ibra yag nañ ko dajé waaw ngay jambar lool ñu ngi ñaan yalla yalla yagal la fi sëñ yow mom xam nga señ yow ci biir Cheikh Ibra nga bok na samaam señ Ousmane Ndiaye sëñ Touba na ko gungé sax mu daan fanani ke Cheikh Ibra mm-hmm. lool da nañ ci dëkk benen yoon sama dara dara de Cheikh Ibra Fall loolu xam nañ ko bu wër sama maam Moussa Faye mi ju sama nday mm-hmm. Cheikh Ibra Fall ko tarbiya mako ko yar tubarkalla yëkkati na mbalaan sang ko mhm. ba mu xëyee fajar di mbalaan bi jox maam Cheikh Ibra Fall mhm. Cheikh Ibra ne ko dee ko sangoo mu ne ko nelaw dama fay indi mu ne ko wax nga dëgg mu safa biddante ñett doom rek la am mhm. gàtt fan gàtt wërsëg day dem sawara yow sa ñaari maam yëpp Cheikh Ibra Fall lañ xam ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar nag waa kuréelu julli géej gi mooy sunu yaay soxna Sodo Xuma ñu ngi waajal baax le 20 ak le 21. incha allah bu baax a baax. Ah, le 20 de moom mooy bisu mm. la Serigne Cheikh Jëmm Fall di yebal. Mm. ñu koy waajal bu baax a baax bis boobu. Mm. sunu yaay soxna Sodo Xuma di ko ñaanal baax. Cheikh Makhtar Diouf ak mboolem ñi ñu àndal liggéey bi yëpp soxna Seynabou Thiam Baye Fall moom it ñu ngi waajal bu baax a baax ñu ngi koy ziar bu baax tey ñaan sama borom defal ko ndam Eh, ci bis bi moom tam xam nga bis boobu bisu maam Cheikh Ibrahima Fall la waaye tey nag café Touba yu bàyyikoo mm. sunu yaay soxna Ndey la soxna Ndey Jaxate nga mm. xamante ne bi soxna Ndey Roqay Jaxate mm-hmm. moom itam doomam soxna Sarr moo ko segg moom sa wëllëre la sax la bëgg la ndax yàgg na ma tudd sa ngir bëgg rek ndeysaan nga ñëw ci jotaay bi ak soxna Thiané Sarr ak mboolem njaboot waaw soxna maam Jaara moom sunu moom waaw soxna maam Jaara ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax moom itam di jàmbaar di ku bëgg jotaay bii ak mboolem njabootu sunu baay Pape Sarr bi yëpp foofu ci Géejawaay amoo sis di leen siyaar bu baax a baax waaye di a baax sunu yaay sono nday roqee jaxate sunu borom dala ko fa yàggal bu baax ku bëgg jotaay bi la di siyaar baax a baax nga xam ne tey waajal nañ ko mu ñëw ci jës bu murit waaye di siyaar bu ñëpp nekk ci liggéey a baax sunu murit yi ñu jàkkaarloo sëñ Mbay Jaw sëñ Ndiaga Seck Salih waaw moom moom moom moom moom moom moom daa bokk ci biir liggéey bi tubaarkal la jàmbaar la bëgg Cheikh Ibra Fall nag bëgg Serigne Saliou mm-hmm. waaye Serigne Saliou mooy Cheikh Ibra bu xajee sax ma wax la ci benn bi ndax ah, moom ah. ay jamono dafa am benn usine boo xamante ne da doon jaay sàngara waaw di ko defar waaw woo ko fay ko ci lu bari mm-hmm. sëñ Ndiaga ne man du ma lekk àll sàngara Njaga Seck dama liggéeyal Sëñ Tuubaa hmm? te loolu da koy nëbb Njaga murid la déet Njaga Njaga du wax loolu Njaga loolu du ko wax waaye nag faaw ñu wax ko tey ci jotaay bi waaw loolu lépp lépp bëgg gi sëñ Saliou rek ko sabab nag ak ak dund maam Cheikh Ibrahima Fall di ko jaajëfal bu baax baax di ziar bu baax ni ñu àndaloon liggéey bi ku ci mel ne sëñ Momar Diagne Euh, Madieng ak euh, Serigne Ndiaga Seck sëñ Lamine Ndiaye ak sëñ Abdou Ndiaye moom murit la waaw fàttali ñu Mbaye Diop Baye Fall ak mbooleem ñi nga xam ne teewe nañ jotaay bi yëpp ah. soxna maam Sey moom itam teew si na tey ci jotaay bi ngir jàkkaarloo ak waa Jazbul Murid ndeysaan dañuy bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall bu baax a baax hmm, tubarkal di leen jaajëfal bu baax a baax di ñaan yàlla sama borom defal ñu ndam waaye Baye Moussa Kàllamu laa nag santaan nañ ko bu wér a wér soxna bii ba Diallo di ko ñaanal bu baax <laughs> démb doom ju jigéen dañ am tudde ko maam Cheikh Ibrahima oh. waaw mooy alimati bii ba Diallo ak Baye Moussa Kàllamu waaye nee naa ko nag lebal ngeen ku mat a lebal maam Cheikh Ibrahima dana leen fay de